Sénélec société nationale d'électricité bu Sénégal ak 3 ñoo leen di may seen revue de presse. jàngeen jëf yéenekaay yu bëri xëy tey ci bilan bi nga xamante ne kon moom la Macky Sall ki ñoñam def ci diirub fukki at ak ñaari ñu nekk ci bopp réew mi réew mi quotidien wax ci ci anam yu yaatu ne Macky Sall ak i gaawam ab livre blanc lañu ko duppee moom la ñu daal di fësal ni ki démb ngir fàttali askan wi li nga xamante ne kon jot nañ ko fi liggéey yéenekaay groupe réew mi network bi méngale li nga xamante ne moom mooy livre bi ci bopp boppam ni ab tontu bi nga xamante ne dañ ko jëmale ci Ousmane Sonko ak ñoñom ci xibaar yi ñuy wasaare jamono ji jëm ci anam yu doy waar yi nga xamante ne moom la ñu fekkee nguur gi laas yéenekaay di ko dëggal kon Benno ci boppam tontu na nguur gi fi nekk ci ab livre blanc tontu yi tamit la ko Vox Populi gisee bi nga xamante ne Benno Bokk Yaakaar def na ko ñi nga xamante ne kon ñoo ngànk nguur gi jamono ji yéenekaay bi di ñu yëgal ni ab téere la bu toll ci ñaar téeméeri xët ñu fësal ko juróomi weer gannaaw ba ñu moom mooy nguur gi nguuru Macky Sall gi def fukki at ak ñaar ci bopp réew mi xaar kon ba démb ñuy daal di fësal li nga xamante ne moom la ñu jotee liggéey ci lim waaye tamit ci tur noone la ko Les Échos xamle ci biir yéenekaay bi fësal nañ ci kàdduk maître Sidiki Kaba mi nga xamante ne moo nekkoon premier ministre bu mujj ci nguru Macky Sall ne lii moom ab tontu bu leer nañ la te set wicc jëmale ko ci tuuma yi nga xamante ne ñu ngi koy dégg jamono ji tukkee ci ñiy ngànk nguur gi Mansour Faye ci biir Les Échos ba tey Macky gi lu muy sàkku mooy njiitu réew ma woon ci boppam mu daal di dellusiwaat ci réew senegal fukki at ak ñaar ci bopp réew mi moo tax enquête di xamle ni APR démb daal xëy nañu di layal li nga xamante ne moom mooy seen liggéey ci bopp réew mi waaye suñu naataango yi di fàttali ni kon lu jëm ci ndox mi courant bi téléphone woto yi dëkkuwaay ba ci agence yi bëri na ci tamit ay postes yi nga xamante ne suqi nañu ba mu set wi ci koom-koomu réewub Sénégal livre blanc bi nga xamante ne ñooñu Macky Sall yi démb lañu ko fësal Walf Quotidien def ci jàngat ni bennoo ci xamante ne moom lañ fi samp yëf sax xëy na weesu na diinante mbagg ndax bis bi la jour dafa jàpp ni livre blanc bi li ko tax a jóg dëgg mooy xeex projet bii nga xamante ne nguur gu bees gi dañu ko fi bàqoo li jaaxal kay suñu naataango yu bis bi la jour mooy ci xew-xew bi ni ki démb Amadou Ba mi nekkoon candidat Benno Bokk Yaakaar ci boppam teewew ko ana lan moo ko waral muy laaj bi nga xamante ne suñu naataango yi samp nañ ko l'info yéene kay moom laaj na ba gis ni livre blanc bi li ko tax a jóg mooy fexe ba seetal der ki nga xamante ne mooy Macky gannaaw li ñu ngàll ci ndoddam boobu ak léegi léegi nag ñu jëm ci tasub au conseil des collectivité territoriales ak conseil économique social et environnemental le quotidien yi ne kay tey ci la xëyee mu gis ni li ñu door démb moom day wane ni assemblée nationale ci boppam jëlaat na gëdd gi nga xamante ne moom la am commission des lois nag wóolu nañ ko ni ki ëllëg ci ab ndaje 24 heures addu yi tamit ci CSE boobe ak HCT bi nga xamante ne dañu ko war a tas yéene kaa di samp laaj ana kan mooy am kàddu gu gi diggante njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye ak assemblée nationale ci boppam assemblée goge ci la témoin yéene xëy delluwaat tey mu ñu yëgal ni daal ci xeex yu mujj lañu tollu diggante Benno Bokk Yaakaar ak Yewwi Askan Wi foofe ci péncum ndaw réew mi laata ñu koy tas tas goge nag jàppale ni mënuta am fii ak fukki fan ak ñaar ci weerub septembre jotul yéene bi moo ni fësal tontu li nga xamante ne moo jóge ci conseil constitutionnel jëmale ko ci Bassirou Diomaye Faye moom njiitu mi Bassirou Diomaye Faye lu bëri ci police nationale bu ñu sukkandekoo ci enquête yor-yor bi gis ni baleek njiitu réew mi Bassirou Diomaye fay yegg na ci bopp police nationale ndax kii di Adramé mi nekkoon dik ak Bara sangare mi jiite woon sûreté urbaine dañu leen mujj dàq léegi nag El Hadj Baydi Sène ak Ismaïla bi ñoom ñooy ñi yor lenge yi ni ñu yoree Nabou lay ca Ndungu Sine l'observateur ci la xëyee niki tey ji di ñu nettali ni feccikat bi ci boppam mu ngi ci chambre 5 waaye anam yu mu nekkee moom doy na waar ndax jaaxle moom Nabou Leye mu ngi jot nag ay appel yu bëri am sax ndimbal di assistance sociale ci ñi nga xamante ne kon ñoom la fekk foofee ci kaso bi kii mucc ci kaso bi mooy directeur général bu premier bet libération yéenekaay di ñu xamal ni mujj gi kii ñuy tuumal waadu fraude fiscale ak détournement de deniers publics ab bracelet électronique lañu ko takkal gaynde yu Sénégal bu yóbboo ñu xam ni dinañ ci takk rip ndax Burkina Faso mi ñu war a dajal ajuma ji ñu dëgmal ci jongante ñeel éliminatoire CAN 2025 ñoom pare nañu ba noppi réew di ñu xamal ni ñoo ngay dànqaafu sax goney Aliou Cissé yi